Euh, tey dañ fi ñëwoon Mbour vraiment pour euh, matérialiser finaliser un long processus cela veut dire la mise en place de la mutuelle mise en place mutuelle de santé départementale de de Mbour donc euh, avec les autorités administratives et avec appui niveau central donc après la mise en place des antennes antennes yi ñu teg au niveau des communes tey vraiment mutuelle de santé départementale lañ doon teg. def nañ ko ci jàmm am nañu un fort consensus fal nañ euh, CA bi fal nañ euh, comité de contrôle bi fal nañ aussi un président et deux vice-présidents donc le processus va continuer mais li ëpp solo mooy sookal bi teg nañ ko tey ñu ci sant yàlla ba di ah, liggéey bi jàpp nañ ne jaar na yoon parce que délégation yëpp ñëw nañu teel nañoo ñëw ñu commencé def lu ñu war a def suñu rapport moral rapport financier def lépp présenté ko assemblée bi CA bi renouvelé waat confiance am si man nga xam ne maa ko war a jiite mutuelle départementale bi fii ak ñetti fii ak ñetti gërëm ñëpp di sant ñëpp acteurs yëpp yoo xam ne ñoo nekkoon bi ñu ngi leen di sant leen di gërëm mais xam ne nag waar bi dafa am solo parce que euh, ministre départemental il faut ñëpp jàpp si autorité administrative yi municipale yi euh, les prestataires mooy autorité sanitaire yi ñëpp jàpp jàpp si pour que ñu mën a atteindre suñu objectif suñu objectif mooy ñu mettre en place benn la direction technique direction technique boobu mooy jël mettre en œuvre activité yoo xam ne mooy mutuelle départementale bi moom la war a war a def dañu am si yaakaar bu rëy rëy si département de si département de ñu talal loxo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu mën a jàpp si si liggéey bi